Salut les amis de eSport TV, guys. Merci encore de la confiance en renouvelée. Merci du way di like et surtout merci du way di abonné de agrandir famille bi di bës ci cloche notification bi pour di jot vidéo yi mais également di bàyyi seen i commentaire ni ñu ko waxee saa su nek rek bépp doomu adam bu feebar yalla suñu borom fëgg sa bop nga xam nga nek hôpital wala ci kër yi képp ko xam ne également na nga am torof torof suñu borom teggi la sa torof torof. fàttuñ ben yoon suñu mbokk yi nek ci Europe Afrique États-Unis Amérique ah, Italie gox nako Canada Bruxelles bàyyiwuñ ben gox ak gox yi gëna sori sori ci bini Sénégal képp fo xam rek yaangi nek fi fii di ñu jaajëfee ñu ngi lay jaajëfal yow tamit gaay jël suñu loxo jox la di wax ne également bépp doomu aadama bu nekk ci kasso suñu borom yàlla na dafa génn tégaat la ci yoon bi képp ku dëddu aduna suñu borom xalal àjjana fir daw di wëy di abonné di wax aussi jaajëf gars yi nga xam ñi ngi wëy di jox seen suggestion et je vous l'avais promis affaire yaa ngi avancé demaguñu fenn nak dañuy dox nank nank mais bëgg nañ ku nekk gis ci seen bopp ku nekk gis ci boppam comme ñu ñu ci gisee suñu bopp loolu lay ñaan yalla ci am plaisir di leen di satisfaire yéen tamit ngeen am plaisir di mën di jot information en temps et en heure et gars yi ni ngi koy waxé ah donc aujourd'hui on va parler ci li nga xam moy mooy et sa liste

damay bëgg gaay di wax ha ah, nañu woy répondre question bi par rapport ak li ma posé won tey ci suba ah. mais VAR bi également dama ci profité gaay ni ñu wax rek chance di échanger di remercier ko xamné mi ngi apporter soutien am li nga xamné moy chaîne bi ak aussi ñi xamné moy supporter yi ak aussi ñi suivre chaîne bi di Pape Abou Cissé le champion d'Afrique ñukoy koy parce que mo nek ci njëkk ñi gëm projet bi dama ko ñu fenn ah. mais Pape Abou Cissé qui a tenu sa promesse gaay waxon waxoon nañ leen ko Lamayine félicitations moom mo gagné mayo bi Pape Abou Cissé nak yónnee na ko ko bientôt di ngeen gis vidéo Lamayine mu def ko wane ko donc li moy preuve bi ne Pape Abou Cissé envoyé nako maillot bi donc bu ko jotté dina def mom vidéo la pour remercier ñi nga xamné moy mooy Abou Cissé mais également dañuy wax gars yi jeu concours bi day continuer amna yeneen nouveautés yi ñew amna na yeneen partenaires yoo xam contacter nañu pour bokku ci am ay jeux concours yi xam koy def parce que comme on dit on n'est pas simplement là pour nous servir mais on est également là pour se servir prochaine vidéo bi ma war def nak ci portrait je vais faire un portrait ci ki nga xam ne Babacar Ndiaye bu Leipzig et la bonne nouvelle moy que ne moom jox nañu accord am ne ki gagné ki gagné gars yi tenez-vous bien ki gagné day am maillot dédicacé par ki gars yi par ki nga xamné actuellement mon moy toj Europe Europe muy Christopher Nkunku bok ci pépite yi nga xamné actuellement ñu ngi duggal di wone seen bop donc ku ko gagné peut-être nga gagné maillot bi wala beneen maillot en tout cas di nga am maillot dédicacé boo xam ne le président Babacar Ndiaye le coach Babacar Ndiaye jox nañu af né dina ko joxé ki gagné donc également actualité moy Quincy Promes waxon naa ko gars dañ koy topé walum trafic de drogue dañ ko defoon sur écoute maanaam dañ ko doon déglu moom actuellement ñi ngi koy toppee ni lu tolloo 4000 kg de drogue le commandé moom ak njabootam moom famille am loolu la gars yi daal di wax li nga xam ne aussi mooy ca Brésil euh, ci Paris Saint-Germain gannaaw bi nga xamee ne ñoom dañoo ndërmeelu ki nga xam ne mooy brésilien bi di Leonardo ak Nasser El Khelaïfi tey avant entraînement yi di commencé waxtaan nañu ak joueurs yi nee ñi ngi jégalu par rapport ak li nga xam ne bëggoon ngeen ko éliminer dañ leen mais gëm nañ ne di ngeen mën a jël Ligue des champions ci année yi di ñëw loolu la ki nga xam ne Leonardo wax pendant ce temps également waa ki nga xam ne mooy waa Italie ñi ngi commencé wax ah di joxe information nekk nga xam ne Donnarumma actuellement bëggatu nekk Paris Saint-Germain dafa bëgg a fi nga xam Juventus de Turin donc yooyu ay Corriere dello Sport Gazzetta ñoo koy joxe mais en tout cas c'est des rumeurs yoo xam ne ñu koy wax foofu ci Italie pendant ce temps également ki nga xam Mikel Arteta moom dafa def demande ñi nga xam ne mooy Arsenal nee na dafa soxla ñaari avant-centre soxla ben défenseur gauche soxla ben ailier soxla ben latéral droit soxla également ñaari milieu de ben milieu de terrain donc loolu mooy bëgg-bëgg ki nga xam Mikel Arteta pour saison bii di si c'est Cissé gars yi wax naa la ko day publier listam donc listam mi koy publier donc euh, vendredi bii di ñëw lay ah, donc à partir de 10 heures good Goodreads la koy a mu ngi joxo listam bi nga xamné mo jëm ci double confrontation Sénégal Égypte pour jëm ci coupe du monde 2022 ci Qatar et que ce qu'il faut retenir moi, que ne Aliou Cissé du changer liste bi à 99%, vingt dix du ko changer donc changement oui, am ce sera après la euh, les barrages du Sénégal qualifié Inch'Allah, allah te wax naa ko di ngeen surprise bu ñu ñaanee Sénégal qualifié parce que am na joueur yu ci mel ne Malang Sarr accord loolu wax naa leen ko et pendant également ce temps ñooy dinañ am seen regroupement et tout Aliou c'est aussi liste bi peut-être que euh, équation bi gars yi daa mooy ndax Ibrahima Mbaye day ñëw wala ñëw parce que Youssouf Sabaly par rapport ak performance am bi mu def day ñëw et loolu on va en parler tout à l'heure joueur Aliou Cissé également de bien maintenir dynamique bo xamné mom la amone ak équipe nationale Sénégal le sélectionneur bi nga xamné actuellement mom ce qu'il veut c'est clair fédération bi def nañ li nga xamné moy war dem nañ fa nga xamné moy mooy Caire def li nga xamné moy repérage yi xol hôtel bi xol également terrain yi et tout waaja sen bopp baxa bax na ndax bëgguñu wa Égypte teg leen deal parce que Abdoulaye Sow sax wax nako néna tay nak wa Égypte nañu xam lépp lu ñu def fofu ñun bu ñëw fi dañ leen ko fay lépp bor fay comme on dit donc ñom actuellement Sénégal mi ngi préparé par rapport à li nga xam mo jëm ci double confrontation bi te Égypte donc égyptien yi lebal leen ñu lu baax sinon les Sénégalais sont derrière vous pendant ce temps également ki nga xam ne moy donc euh, ki ngeen di gis ni donc ah ken jot ko présenter donc le latéral droit de l'équipe nationale du Sénégal woné bopom ci li nga xam moy mooy Bouna Sarr ci Coupe d'Afrique bi Bouna Sarr nag dina nekk concurrence bu métti moom ak Youssouf Sabaly même bu fekkee Youssouf Sabaly actuellement ak euh, temps de jeu bi moom bu ma tout peut-être mooy titulaire on ne sait pas wa Ghana ñom néna ñom dañu publier seen liste lutax ñom ñu ne duñ publier seen liste parce que ñom euh, Nigeria lañu wara war a dajal ñoom nee nañ seen stratégie mooy bugguñu selon Africa Foot

le joueur d'Arsenal bi nga xamné mi ngi woné boppam actuellement le jeune joueur Tite Mom, Mom néna après coupe du monde bi joxana information bi le sélectionneur day quitter équipe nationale Brésil mais Martinelli actuellement bokk na ci liste bi nga xamné wa Brésil convoqué nañ ko la Sao. l'autre nouvelle gars moy le ballon d'or mondial fay changer règle selon le journal l'équipe lutax parce que ñom équipe ñoo organiser, ñom ñoom wax légui France Football bok ñom la wax légui selon le journal équipe nénañ France Football ñom nénañ tay actuellement ballon d'or bi légui dootul nekk sur une année sur ben saison lay nekk donc dañ koy tab ci ben saison benen bi moy date donc octobre 2022 lañu joxé ballon d'or féminin ak également ballon d'or masculin joxé waale également trophée Copa joxé le trophée Yashin. bi nga xamné Edouard Mendy bu continuer ci bi ni mën nako gagner saison bi di mais également comme on dit légui li wax moy performance individuelle ballon performance collective et que également dëkk yi nga xamné ñoy ballon d'or sans premier dëkk yi nga xamné ñom la ñooy classement FIFA bi ñoy def tanef bi légui donc dañu changer règle yi pour gëna jox chance li nga xamné moy donc Sadio Mané ak ki nga xamné donc moy Edouard Mendy gars yi ils peuvent en une saison si tout se passe bien beaucoup ci à nga xam ne ballon d'or parce que déjà c'est bien parti pour Sadio Mané et ki nga Edouard Mendy parce que gagné les li nga la coupe d'Afrique donc coupe d'Afrique bi 2022 ils lañ comptabilisé parce que 2022 ils ko joué Gaï. donc donc ils ont un avantage donc Edouard Mendy bu continuer ci dynamique bi Sadio Mané ñu koy lafal cat mu ci dynamique bi incha allah rabi qualifié également coupe du monde donc nous ren une chance plus de chance sax bokk ci li nga xam ne le donc trophée ballon d'or donc également li nga une incohérence yi gars une doon wax na il y a yi nga qui ne ay africains lañ te ngir africains yi donc actuellement loolu yëpp dina remettre également aujourd'hui les papiers à plat les tableaux à plat comme on dit hein les choses à plat mais également Lewandowski attention Lewandowski gars yi également gagner ballon d'or bi hein. Lewandowski et également d'autres joueurs mais ce qui est sûr moi africains qui kii di Sadio Mané ak qui nga xam mooy Edouard Mendy pour l'instant ils sont mieux partis parce que ont gagné une Coupe d'Afrique di ñaan Yalla également ñu qualifié li nga xam Coupe du monde Edouard Mendy bi nga xam actuellement il fait partie des meilleurs gardiens du monde wax ko demb donc wa Premier League les gardiens de la Premier League ñenn wax nañ ko actuellement amul gardien bu ko gëna euh, nek performance am performance plutôt actuellement aussi gis ngeen tay hein donc stade yi gars def par rapport au nombre d'arrêts nombre de clean sheets nombre de matchs yi Edouard Mendy mo en tout cas c'était les informations angehen, Jeff.